Xasaani kennu Seex Maama Aydara yaay xalifa Seex Abdul Asiis yaay xalifa Seex na Seex Saadu Abi Sëriñ Seex Maama dundal say may di baawaan nga yàgg fi di xalifa Seex na Seex Saadu Abi kenn ñoo ngi wax ku ne ku ne yaa ngi wax waaye ki mën a tiitaroo baayam dëgg-dëgg mooy kan borom nim sa cheikh na cheikh saat bu moomul lañ ma nii waaye wax ñu dëgg dëgg dëgg dayoo jëfam ci Sénégal mi ngi jëfam a ngi jant bu toll nii tranche d'âge bi diggante vingt à quarante ans la lépp Cheikh na Cheikh Saad bu di borom ci deux mille dix neuf ginnaaw bi mu génnee àddina ba am téeméeri at ak ñeent wala juróom ah lu ko fi indi quelles sont les raisons de son voyage au Sénégal waaw kay boo xamul Cheikh na Cheikh Saad bu doo xam Cheikh l'Islam kon Cheikh naa ma mii ngoon de way du ngeen xam kan la waaw ndax da tegale tegale bu jekk mu jëm kaw waaye ndab bi ci suuf bu jàddee bala nga ci teg ñetti ndab mu ni furus cheikh na cheikh Saad bu nag tegalewul noonu ñaar fukk ak ñeent rek la dugg Sénégal jëmul woon Sénégal xalaatul woon Sénégal ponkal yo ci Inde ak Iran ak Pakistan ñoñu lay ko yàlla gon ci batin mu ni day mbeukante ci ak ñom waaye ndek ndey mbëkkante mbeukante bi gànnaar la koy commencer taramat ka nathan bil qurun ajillatin fa anta min nath al ajlat khaifu degal amar mo rool séebata nee na da nga ni duggug Mauritanie rek walu yu ku ne génn sa bejeen ku ne uriir wut si la yow da ngay ragal seen béjjén yooyu seen béjjén wëtteel la yow sa bos acier la ana zuxri fi saxrin asami taassurun ami saxru min habbi saani firajubu ndax ndax we mën na ja xool dëgëraayam ba dem di attaqué xeer juróom-ñeenti at mu wër ko gànnaar maate leen ba mu ni ma maañ xelam nag dem ca xadis ba mu jàngoon لا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها من أبيض وأصفر تنفقها في سبيل الله attention شنو الطريقة بالطريقة خم خم لا شيخنا الشيخ سعد بوتي خم خم لا كورتي غون سما سانغ بي نيو رجي خيكو تي خم خم مو شيخ الاسلام واو su dilee ba Kelle dafa jaaxal gars yi de 88 à 2006 ndeysaan sëñ Moustapha Cissé yal na ko yàlla yërëm te defal ko leer mu ne ma bàyyi Cheikh boo mësee toog ak sa sang bi bu ngeen nettali ci télé bi rek damay damay damay dem tëju sama saal di leen déglu Assane Diaw be ñoom rek yeewu woon te foofu ci kaw la ñu bari doon tëdd. nee na bi mu ñëwee ba toog mu ni ko nekkal gi sama ginnaaw mu lal dafa da nga ni ma dafa lal benn mbàjj mu nee na naa na di di di di ming nii nekk ci xaal waaw nekk ci jaz bu dëgg na moom mu ànd ak moom ci jaz bu bi ba mu yàgg mu ne ko jógal taxaw jox ma sa loxo ba ma ko joxee sama loxo mu ni bëri doxal daal di dox jóg dox téye ko moo jubal penku jëlaat concom teg ko ñu ànd di sikkar ba fa muy jiitee timis mu dellu si waat nee ba muy dellu si waxatul mu jël téye garaam bu defaraat ko téye nii ndiggam ni ko caamax ana mbaaj mi ma la dénkoon caama indi mbàjj mu ni ko laal ko jubal ko mu xaw a jàdd tuuti ba gànnaar mu ni ko déedéet na jublu euh, xibla mu lal mbàjj mi toog ci mu ni ko sama ginnaaw mu ne lu ma wax wax ko mu commencé sikkar da naan di jeexu ba mu yàgg mu tàllal benn tànk bii bu ndeyjoor bi bàyyi bii bu gauche bi mu mu banko mu teg ci loxoom ni qul huwa ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ni ko tëral ma nee na mu dellu ginnaaw nee bi boppam di toll ci dënnam ñaari kàddu la ci teg yaa cheikh na cheikh Saad Bou allah room génn